mais nekk benn boobu bu ñu génnee kaso ñu doon déggoo ma la ak Rangers ak Anamis ñoo ànd dem def commission ad bi ñu nekk benn boobu moo waral commission ad hoc bi ñu def ko parce que bu ñu nekkuloon benn commission ad bi du mun a nekk nekk benn boobu moo tax. Mhm. ñu def commission ad hoc nekk ngeen benn te mujjut fenn. voilà li ngeen xaar amoo leen problème dinaa ko wax parce que mhm. dama ko junj mais comprendre lo mhm. dafa mel ni ñi ñi ngànk armee bi. waaw faale wuñ leen en fait. faale nañ ñu. parce que faal na parce que ñoom boobu ba léegi ñu def ay jéego du mën a faale wu ñu. d'accord waaw faale nañ ñu. d'accord parce parce que boo xoolee même suñu pension mixte bi ñu ciy fay ñoom ñi nekk armée taxaw nañ ci ak pour même même waa police ñi nga xamante ni ñoom suñu wàll bu bu ñuy marche ñoom ñooy ñëw seen i seen i autorité taxaw nañ ci ak su ak lu sous préfet Djibi Diallo mmh.